أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله ngi tàmbalee wax ji di ñaanal Cheikh Mountakha Bachir suñ borom yokk fanam bu baax wéral ko jaar ci moom ñaanal njabootu Serigne Touba gi ànd ak liggéey bi te liggéey bu sell bu mu jote ci magam ja sëriñ Sidi Muxtaar nuyu sëriñ Ahmadou Badaw yi ci ndigalu euh, président national Cheikh Cissé nga xam ni moo jiite délégation bureau national ànd ci itam ñu jóge ci département yi Koungheul ci njiitu safaan Ndaw damay wax sax région Kaffrine waaye itam Amadou Sakhir Diop région Thiès muy département Mbour te ku ci nekk ànd ak mbooloo moo xam ne nii mat na sëkk fu inaa quoi mën a yebal mbooloo mu teewe ko fa Ah, di leeral nag tuuti ci mbirum bourse yi ndax bu ñu nee commerçant lu ko jotale ak ay bourse rawatina école wala université mënees na ko leeral ba nit ñi xam ko commerçant daa baaxoo ubbi bitigam dugal ca marché jaay bu wàccee am bénéfice ñibbi loola buñ ca saxee commerçant du jariñ kenn ku dul boppam ak njabootam waaye nag bu ñu demee ba dajaloo seen biir def kuréel kuréel gi am fanweeri at ak benn ci ren ki ko nëkk ñu jiite di président Dame Ndiaye yàlla suñu boroom yokk leeram fa mu nekk ndax ñu ngi Touba kuréel gi war naa mën a dem ba jëriñ réew mi su dul loolu ña nga xam ne dajaloo nañ leen ba fal leen ñoo ñu itam dañuy mel ne ñi leen fal rek ku ci nekk sa bopp nga fi nekkal soo xëyee suba am sa bénéfice ñibbi. xëy suba ba ngoon am sa bénéfice ñi fi dëkk ci anu lan ngeen mën a jariñ réew mi anu ngeen mën a jariñ Sénégal yàlla def nag UNACOIS depuis fanweeri at lu réew mi ma saan woote buñ ca buñ ko yegee dugal ca seen loxo bu ngeen fàttali jamono yi si njéeréer yi daan am jamono yi Abdou Diouf la woon sax da daan woote ñuy wut ay ndimbal di ko jox ñu niw doole UNACOIS daan indi loxo bu dee mel na mbas mi am bërki démb rek keroog bi ñu def président national Cheikh Cissé yëkkati na 10 millions dugal ko ca te loola lu ñu xeeb la ndax noonu la ko defee ci yeneen département yi Moustapha Ndaw mooy suma mooy ku ci nekk région yeneen wala département dajale nga dara jox préfet ba fa nekkul gouverneur jàppale nit ñi ci mbas mi loolu la ñuy wax RSE muy loo xam ne entreprise wala association day liggéey ngir nangam waaye dana dajale as lëf ngir dimbali ñu néew doole yàlla defee nag biñ ko falee te mu amoon sax ay coow ci biir UNACOIS mu nekk responsable UNACOIS jàpp boobu UNACOIS yee sa juddoogul ci la ma jox ndigal man ak benn comité bu mu formé boo xam ne nii ñoo def contact ak ay école tàmbalee ci INSIP Afrique tàmbalee ci EAM ba ñëw ci HECM ku ci nekk si signé nañu ak yow convention boo xam ne nii dañuy créer lu mel ne centre d'incubation mm-hmm. mooy maanaam xale yi nga xam ne am nañ diplôme ñu jàpp leen leen ba ëllëg ñu mën a créer seen entreprise wala sax balaa ñuy créer entreprise mën nañu liggéey ci beneen entreprise en tant que employé suñ amee expérience il suffit ñu pousse leen ëllëg ñu mën a ubbi seen entreprise te ku ubbi sa entreprise bopp la nga njëkk a mooy sa emploi bopp léegi nag nga wut ñeneen jàppale leen ñu dugg ci entreprise liggéey suñ borom nag lu mu barkeel mu barke lu mu barkee rek mu am barke euh, bi ñu ko defee ci ñetti école école bi mujj moo mujj ñëw woo ma téléphone directeur bi ne ma dinaa ko esal de may nañ leen cent cinquante ah, ma fekk booba siñe nañ convention ba eggal ma ne ko ah man de mënaguma koo wax président fii bindoo leet signé ko mu ñëw ndax euh, lu jëm ci administration de am këyit léegi bindal lettre signé ko ma doo ko mën a yëgal président mu ne ma suba suba suba ma bàyyi waxuma président ci suba bi ma jotee lettre bi ba ñu déchargé ko secrétaire ma ko doo ko téléphone président ne ko ndax feex nga mu ne waaw ma daal ñëw ci bureau explique ubbi ko lii may wax ni mën na ñetti at ci organisation ak ci mbaaxam bi ñu calculer bourse yi booba matoon na 600 millions Moustapha Tall mooy premier vice président su ko neexoon woo ma woo Moustapha Tall daal di téye bourse yi foofa wecci ko def ko marchandise parce que loolu laal lu ne bu amee valeu ni ñu gis ko naa nekk xaalis ci saa la ne man nañ woote réunion région yëpp. ku mënul ñëw yëg li ñu fi def ñu waxtaan séddale ko région yi te bu ma koy def danaa ci jot jokkoo gouverneur yi ndax région bu ne am na gouverneur am na inspecteur d'académie régionale waaye am na aussi représentant UNACOIS foofu bu ko defee ñoom ñett ñu waxtaan tëral critères yi ñu tànn sànni poursuivre loolu li may wax ne 2018 la yàlla def ci taw feex ñu defee ko noonu région yi am yebal ay nit Dakar aussi ba maanaam absorbé ñu bourse yëpp mais 80 pour cent yi commencé nañ jàng euh, xale bu jigéen bi euh, sëñ Ndiassé doon wax ci la bokk ci déwén suñu defaat noonu ba ren nag moom ci laal gu mu jëflante ak sëñ Amadou Badawi mu xelal ko ne ko lu mel ni su amee buñ ci jëlee ak cër teg ko ci loxo sëñ bi ci lay gëne te sëñ moom lu mu laal mu barkeel kon loolu moo waral bourse yi te ren bi ñu defee lettre sans bourse dafa fekk mbul jox ko ko diggante bi. am nañ cinquante demandes yu ci topp muy cent cinquante fi mu ne nii lii cent cinquante neuf bourses la kon cent bourses bu fekkee valeur deux cent millions la bu ci cinquante toggee xam ne kon cent millions tegu la ko waral tam mooy école bi ku amul bourse boo ñëwee inscrire danga nga fay droit d'inscription waaye weeru ne da nga fayal sa doom mu jàng mu am ñetti at ci filière bi nga xam ne tànn na ko. première année L1 L2 L3 muy année licence après le baccalauréat bu neexee kon ne def master 1 master 2 xam ne kon cinq après le bac niveau ingénieur ngay am te nag ginnaaw moom jëmm ji tax ñu daje fii muy Cheikh Amadou dafa tegoon tànkam ci yoon wi yont bi tegoon tànkam yont bi ñëpp addisi bi siiw na ne jaamul yàlla ba mel ne tey ci ngoon ngay faatu waaye liggéeyal àdduna ba mel ne doo fi jóge mukk kon alaa alin des na jàng njàng moo xam ne nii day ñeel sa doxalin ci wàllu àdduna waaye doo fàtte sa diine te diine na ma ko waxoon keroog diine amul benn science bu ci mën a génn tawhid fiq ak tasawuf waaye bu dee ci wàllu àdduna nag moom filière dafa bari te école bi ñu ngi jàngale filière yu bari yu mu amul mën na ko lijjanti après tàmbalee si comptabilité fiscalité gestion des entreprises management digital lépp lu jëm ci droit des affaires droit international ak lépp lu aju ci loolu loolu xam-xam la boo xam ne nii ku ci am baccalauréat defaat ci ñetti at boo paree am na sa métier te am métier weesuwul entreprise gis sa sa sa compétence wala sa expérience jël la ou bien ñu pousse la jàppale la nga am sa fit wala sa xereñu bopp créer sa propre entreprise comme ni ma ko waxee sànq ma jeexale nag ci li ko lëkkale ak université xam naa suñ boroom moo ñu baaxee Cheikh Ahmadou Bamba ndax nekk ci Touba 1886 jëm 1888 ay garab wër la ak i rabi àll nga wét ni tundum wéeru ci garab jublu penku di bind kenn mënul gëm li mu wax lu dul moom ak yàlla mi ko mi xam li nar am ëllëg keneen keneen ku ñu ko doon wax ci digg àll nga daan fii danaa fi am dëkk bu mel nii danaa fi am école bu mel nii waaye ku yàlla may tuuti fasaxa wala nga déggtu wala nga gëstu bopp da xam ne ci mu jooju yàlla defal na ko loo xam ne nii day xam lu egsi masalan sama àll wa gàtt na de waaye ku yër nu mun lay sudur mu lay sudur da gis sëñ Tuubaa di wane yomal xiyam nii la nar nii la nar yomal xiyam kenn dema ko fa des di nett bi te egguwuñ fa yàlla may ko boobu xam-xam mu wéeru ci garab yi nii bind mu lay sudur wax ne yomal xiyam ni la nar a demee suba teel la jaam yi la mbindaa fan yëpp di dekki bu ñu eggee baar mu jàkkaarloo ñëpp tàkkusaan ñu tàmbalee peese jëf yi timis ñu joxe téere yi gée ñu jéggi siraat tey bu ñu yomal xel kon kooku bu ñu arriéré mu toog wéet moom kese cundum ci digg àll bi di wax ne sama dëkk bii nii la bëgg nii laa bëgg mel ni ëllëg bay tudd université boo xam ne nii dem na géej quatre-vingt-quinze dellu siwaat dem gànnaar cinq ans ñëw ci yéen jóge ci yéen ñëw euh, njaareem jóge njaareem làqu 1927 sëñ Modou Sa toog jóge fii sëñ Fallou toog jóge sëñ Ablaye toog ñeenti at la ci toog rek la ci teg donc fàttali ko cent cent quatorze ndax soixante huit la mu commencé xalaat université ba teg xeer yi ba tàmbali koo liggéey mu dem ak ñi ci topp rakkam yi ci topp ak doom yi ci topp mu Mountakha ñëw ne liggéey loolu loolu def muy liggéey loolu def ku ko bëgg jàppale na ko fekk ci loolu lu mu ànd na ko ci def kon ci gàttal suñu amoon ay milliards tey dañuy ñëw jox si suñu Muntaxa ne ko suñu wàll université bi waaye yàlla def na suñu doole xaj na fii la toll ñàkkul dinañ def leneen ñàkkul dinañ def leneen waaye link la ci université bi ndax ku ci jàng tey ba am sa licence fekk par ba commencé fonctionnel xaw ma nu UFR doxale waaye foo ci dugg rek boo jàngee diine fekk sax amoon nga jàngoon nga rawal jàngal alxuraan ba dëgër leneen loo jàng rek sa àdduna day daal ndax am nga métier xam am nga xam-xamu diine kon sëñ bi ñu ngi amale foofu suñu kàddu di sàkku ñaan di delloo dara ji ji ak cër bi yëpp ci sëñ Cheikh Cissé mi nga xam ne moo waral jotaay bi ginnaaw yàlla moom aussi région yi ñetti délégation moo am Moustapha Ndaw ak Amar Saxeer ak Sang Fall foog naa ne leneen li président national su ma ko tuddee doo mën lim mbooloo mi kon ñu jéggal ma lool kon ci gàttal delloo lépp ci moom ndax mooy suñu njiit te itam liggéey bu ñu fi def rek moo ñu ko dénk te ñu ci am dañ koy delloo xataluñu ci dara nag yaatal ñu ñu déglu di déglu ñépp loolu moo tax tey lii su amee ku ko xam du la bett ndax bi ko sëriñ Mountakha mu jee recevoir ci délégation ñu daje ak moom bul kayal te ku fi une semaine président la République woo ko décoré décoré ko te décoration bi ñam ko booleloon décoration bi ñu ko jox moo ëpp ñi mu àndal ñëpp ndax lañ décoré ñooñu moom am na ko 19 ans ci ginnaaw 2001 chevalier de l'ordre national du moom ñu def ko officier de l'ordre national du lion asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka nahmadu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqima siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim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 xam naa moom nekkoon na sama wëllëre yàgg waaye tey nag dama ci am ndigal waxte garab bi ma toogee ak sëriñ bi xamal ko ne ko indi woon naa Touba daaw ñaar fukki bourse ak juróom wante daanaka Touba ñu bari yëguñu ko ba ma ci waxtaan ak sëriñ bi ci dialogue bi nga xam ne Macky Sall moo na ci nommé mu toogal fa sëriñ bi ma nett li ko mu ne ma ah loolu da ko war boo ko amatee sëñ bi jox indi ko ci sëñ bi ba ma ko waxee ci kanamu sëriñ bi ci mburukaayam dafa ma sëñ Amadou mooy sama bunt yaakaar naa ñëpp gis nañ ko ci wàllu bi ko andil noonu ne ma sëñ Amadou mooy sama bunt xam nga nag am néeg boo ciy dugg nag boo jaaree ci bunt bi moom dootul am problème kon nag sama bunt xam naa ne ci sëriñ bi ci lii nga xam ne sëñ doon naa ko làmbatu sëñ bi moom ma waxal boppam ne mooy sama bunt mu ñëw cérémonie bi nga xam ne ci lañuy def pour joxe bourse yi mu ñëw toog xam ne tey moo fi toog toogaayu sëriñ bi kon dañuy tàmbali ci moom ab nuyoo di ci teg nag ñi nga xam ne ñoom laa àndal ci kuréel bi nga xam ne tey lu ma mën ñoo tax muy bureau national bu UNACOIS Yeesal di tàmbalee ci suma xarit suma frère. Moustapha Tall mooy sama premier vice président di koo xam ne Sénégal yépp xam nañ ko kon su ma ko tuddee tuddaale naa ñi ma àndal ci bureau bi di ci teg sëñ Gora Gueye moom itam mooy président section marché pédestre bu Dakar suma lépp ñu yàgg lool di teg Cheikh Soron vice président moom it mu ngi toog sëñ Cheikh Soron ak Dame Ndiaye coordonnateur ak sëñ ma Massila Sarr mi yore micro bi ak alaji Hadj Ndiaye mi nga xam ne moo représenté Sandaga ak sëñ Ndiassa Ndiaye suma conseil spécial yaakaar naa ne su ma fàttewul ak Sang Fall bi nga xam ne tey moo représenté Bakel mooy président section euh, département Bakel ma nga leen a toog moom itam bokk na ci délégation bureau national ñi ci des nag su ma tuddee euh, Moustapha Ndaw bu Koungheul ak sëñ. Euh, Ibrahima nag mi mu àndal xam ne fan bokkee du fii mën naa dem Saxir Diop ak Adja Mam Fall ak jigéen ñi ma àndal ñi ci des ñu jéggal ma ndax damaa teewloo tur yi ma toogee waaye na leen wóor na yéen ñëpp sant naa leen parce que Koungheul ba mu nekk xaw na xëcc te ñoo ñoo njëkk Touba Mbour itam bi ñëwee bay dugg Touba lañ leen fekk ñoo ni fi njëkk sang Fall mi Bakel la nekk mais dafa fekk moom itam mu ñëw Touba ci këram. waaw ndaxte boo gisee délégation bi deme nii keroog ba ñu dem bul kayal tollul woon nii waaye bi mu siiwee te nga xam ne jëm si Touba moom tibb si xiiwal la moo tax ñëpp sàkkoo ji wax naa ci ak sëriñ bi sax doon bëgg a wàññi délégation bi ndax ñu bëggoo ñëw dafa bari mu a ma bu ko wàññi lu ngeen am mu ñëw baax ndaxte eh, bis bi jaaral ko moo tax ma ñemee sax andi lu toll nii di nuyu sëñ Fallou Bousso Fallou Bousso. moom suma xarit la ndaxte sëñ Alaaji bu sa Tamba daf maa féetle woon ak moom bi jógee gànnaar jàng li mu war a jàng daf maa waxoon ne fàllu na ñëw liggéey si Tamba parce mooy li mu wax ne am na loo xam ne du ma ko wax bu ñëwee nga seet lu mu ne ba am capital def commerce te sëñ Alaaji bu sa Tamba foofu la nekkoon di def commerce ba mu fay def commerce sëñ fàllu moo ko wax na ko ñibbisil waa fàttali naa ko ma ne ko nag sëñ alaaj bu sa tàmba su la yebalee ngay def si fii commerce te moom ba mu fiy def commerce sëñ bi na ko ñibbisil damaa bëgg yow it nga xam ne loolu duma la ko digal sëñ moo ma ko sant sama mag la pour ma dimbale ci capital waaye man dama lay digal nga jéem a dem rek euh, génn comme am nga xam-xam génn foofu man di Euh, li li daal ñi nga xam ne am nañ xam-xam te génn dana fekk foofu waaye su ma nekkee fii ci Tamba da fi dëkk rek comme ñu te yow réew mi la soxla ba ma koy wax wallaay xaw ma woon ne sëñ Fallou dana jekki ba fu ci nekk mu dafa dem dafa joxe xam dama ko waxoon ci sama xalaat rek kon yàlla dimbali na ci loolu kon nit la koo xam ne euh, sama wëllëre la euh, woo xam ne tey jii bokk na ñu ma gën a jege maa ngi koy sant di ko gërëm. ndaxte sëñ eh, alaaj bu sa tàmba moo doon denk sama mag su may jarbaat ñooy ay ay rakkam waaye teewul man sama doom ji ma amal sama bopp moom laa ko bàyyee ndax loolu su ma amoon lu ko gën a kawe danaa ko def loolu laay wax ci moom eh, ma ñëw nag ci li nga xam ne mooy bourse yi comme ni ko suñu àll waxee ñun duñ ci mën a teg lu bari ndax leeral na lépp bu si war a jëlee en tant que intellectuel man damay ci sant Sëriñ Tuubaa baax rek ndax itam li ñu ñu mayoon ci ay bourse du woon mat lii waaye bi ma ko indee ci sëñ bi commission bi dem ba am téeméeri bourse bi ma jotee Sëriñ Amadou mu ne ma ah commission bi de tànn na waaye dafa mel ni dafa lañ doon tànn dafa ëpp li ngeen fi indiwoon bala may jox directeur université bala ma koy jot man maa ko waxal sama bopp ne ko lépp la ñuy joxe te xaw ma lan lan la may tontu moom ba ma xëyee wax ko ko woo ko mu ne ma président damay ñëw sa bureau bu ñëw ma ne ko ah ñun am problème parce que li ñu yóbboon Touba duñ mën a gindaat ci bourse jox parce que dafa am cent quarante yoo xam ne ministre de l'intérieur lañ ko jox mu jox ko tous les gouverneurs Jurbel fi mu ne am na ci biis kon am naa ci tuuti gàllankoor mu ne ma déedéet lépp loo wax Touba mais bu doon deux cent dinaa ko joxe. ndaxte xam naa ne kuñ may bés su baax na waaye li may am ci Touba du ma ko seen fenn maa ma ko wax kon loolu ñu moom it ñu ñaanal ko bu baax mu mel ni bourse yi am na solo trop ndaxte ku ne xam na ne nit particulièrement ñi nga xam ne bac arabe lañ am en général bu ko amee day jafe trop ñu continuer seen jàng te waxtaan naa moom ci loolu mu ne ma ñi am bac bac arabe te mën a liir français te en am ko dem ba am bac arabe da nga mën a def cours dañ koy xamaale mu ne su boobaa danaa leen yemale képp ki ak ki ab bac français muy la am solo loo xam ne amu fi woon bëgg démb rek bi ñu président di def defal distinction boobu ci këram palais eh, xaw na maa wéet ak moom ne ko sëñ bi mi ngi lay nuyu mu ne ma dégg naa ko Euh, mu ne ma def ngeen bi ngeen parenthèse bu am solo parce que su ma université bi nekk fi Dakar boo amee bac arab doo ko mën a jàng kon lii ngeen def dana tax parenthèse la boo xam ne bi ñu bari bu leen créé ñu am bac arab ci Sénégal danañ mën a jàng am métier ndax bu dul loolu da am bac arab ba noppi dem tukki wala nga bayi wala nga defe leneen kon lii ñuy def nii day yokk emploi ci réew mi mu ne ma soo delloo Tuubaa nag ma nuyu sëriñ Euh, kon foog ma wax la ko ndax da yaa fi nekk sëñ euh, président Macky la ci boppam loolu la ma wax euh, di leen sant bu baax di leen gërëm di delluwaat ci waa UNACOIS Yeesal itam nag ndaxte sëriñ bi bu fekkee mbooloo danga nga leen jiite ñu jël la teg la ci bopp kuréel bi te lépp loo xam ne xalaat nga ko ci lu baax boo ci diisoo ñoom lañ lay wax ne mën mënoon nga ko def doonu ko wax parce ku ne xam ne na organisation bi du tariixa du diine dafa am critères yu ko laal su ma mënee lépp rek gannaaw ndimbalal yàlla ak Serigne Touba ñoom ñoo ma ci dimbali. du ma koy def su fekkoon ne ku mel ne Moustapha Denema ah mais président euh, cent bourses ou deux cent bourses wax ci yeneen wax euh, dana yeex ndaxte faaw ma jubóog ñépp door koo def waaye dañ ma ko yombalal ne ma. bu ñu amoon lu ko ëpp sax yóbbu ko kon maa ngi leen sant cant gii ngeen may waxal man dama leen koy delloo mbooleem ñoo xam ne tey jii dañoo bokk ci Unacois Yessal foo mel nii Ziguinchor man dumbe Seck ak alaaji Babacar Ndiaye bu Ndar mu itam dafa sori may ci la bokk maam Góor Seen bu Jurbel ak Dammar bu Kédougou sëñ Mbàkke Seck bu Kolda ak euh, mboolem ñi nga xam ne ak waa Matam bépp région bu nekk tey nelaw la wóor na tey ñëwuñu mais suñu jëm yi ñoo leen fi toogal ndax euh, INACO ASL dafa représenter ci département yëpp yu ci bari tous les régions am nañ fa président ak euh, fu bitim réew tam am nañ fa ay section donc loolu rek mu laa doon wax ci moom mbir bourse yi nag ñu ngi nii niñ koy defee cérémonie remise bi ñu war a def sëñ bi moo koy définir en tout cas ku ci nekk ci commission bi li mu tànnoon def nañ ko turam xam ne bu ñu ko yëkkatee danañ mën a woo turam mu xam ne moom moomam bourse bi su ko amee nag buy jàng si foog mu jaar ci adresse bi ci suuf parce que am na beneen euh, am na adresse bi ki suuf mooy suñu suñu siège ñun fi ñu nekk su ñëwee am na beneen lettre boo xam ne bi pour mu mu gaaw sama assistante sax lañ koo cël àll dama ko nañ koo cël assistante bi mu am ay signature xam ne ku ci ñëw rek bu yoree lii euh, day wuute ak ki école bi doon may bourse bourse entier mu jàng parce que Touba dañ ko defal benn traitement spécial ndaxte kuñ mën a ma samay bourse am na danga fay deux cent soixante mille at mi yëpp soixante dix mil yi ngay joxe li ci des nga seet noo ko fay baax mais bi yoon dama waxtaan ak directeur bi ne ko Touba bëgguma sëriñ bi maye ay bourse xaalis di fa jóge buy sonal ñam ko jox mu ne ma euh, loolu dañ ciy waxtaan ñu defal leen traitement spécial ba tax na duñ mën a ñàkk joxe dara ndax ku ne xam ni njàng ni muy demee waaye duñ egg ci ñeneen ñi la ñuy joxe danañ joxe daal loo xam ne danañ ci mën a def seen bulu si ñuy sol li ci des moom comme xas nga joxe sa kàddu dama la ciy fekk loolu la ma wax itam ci loolu kon képp ku ko indi ci lu gaaw rek dañ la mën a indiqué ci école bi fa nga jëm nga daal di jàng eh, li ciy nekk gàllankoor ci ñu bari mooy xëy na duñu am aw nekk fu ñu nekk Dakar peut-être wante bu dee mbirum njàng ma rek moom ñetti at yi doo ci am benn problème loolu dama ko doon leeral ci moom biir rek kon sëriñ bi ñu ngi sant yàlla bu baax di la sant ndax si disponibilité kere ba ma tàmba yow di ci liggéey bi ba tey heure bu ne laa lay woo te amut benn heure bu ma lay woo te doo du ma la jot te lu jafe ci kilifa la di sant commission bi nga xam ne ñoom la sëñ bi tegoon itam parce que liggéey nañ liggéey boo xam ne gis nañu ne ay professionnel nañ ci lañuy ñuy def parce que aussi ñu mën nañ ko jot rek nañuy informel moo noo indi lii waaye bu ñu ko jotee dañu xam ne ñi lii c'est pas la fois ñu def ko te ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñuy am lu mel ni lu bari nag ci Touba di ñaan dans ce appel secteur privé comme li ñu ko président waxee keroog euh, kañ ñu takkal ñu laaya moo ñu war a yokk suñu njàmbaar maa ngi lancer appel secteur privé yépp fu ci waay mën a fexe ba lu mel nii am. nga def ko parce que aussi euh, boo nekkee jiite ay nit dangay am am sa boo xam ne day wute ak individuellement nit kuy dem kon ñoom ku ci nekk war na mën a góorgóorlu ba am lu mu am ci yeneen école privée yi ba def lu mel nii maa ngi leen ko yéene parce que lii xëy na ak jagle la ci inaa ko waa yeesal waaye yéene naa ko ñëpp itam loolu laa doon wax di ci arrêté ma bëgg di def ci samay kàddu rek ma jox ko le vice président Moustapha Tall Euh, mu eggaleel ma ko ndax fi mu toll sama xol dafa sedd ba li ma war a wax lépp mënu ma ko wax sëriñ bi maa ngi ñaan ma jox sëriñ Moustapha Tall mu eggaleel ma sumay kàddu ci ay cant ki ngërëm wasalaam auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim gannaaw bu ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant sunu sëriñ Cheikh Ahmad Bamba mi nga xam ni moo waral coow li ndax lu ñu am lépp moom ñun ay taalibe rek lañu ay taalibe lañuy ñuy bëgg a doon ba keroog ñu fiy jógee mu wujji sunu borom taalibe Cheikh Ahmad Bamba ah yombul maanaa eh, du doon tur woyu tuddoo mbubboo rek dafa doon ab doxalin dafa doon eh, maanaa comportement ci lépp rek maanaa fépp foo taxaw ambassadeur ngay doon ci maanaa ni nga xam ne noonu ngay nekk ak nit ñi noonu ngay jëflante ak nit ñi eh, ci ci exemple ci lépp waaye doonu murit laa rek ah lu la neex def lu la neex wax ba tax na kon tarbiya googu nga xam ne moom lañu sëñ bi tarbiya loolu dafa rëy lool ci ñun mënuñu koo amee feneen fudul kër Cheikh Ahmad Bamba ci yoonu Cheikh Ahmad Bamba bi eh, suma waajur yi nga xam ni mooy moo ma meññ may taawam mu dëkk Kaolack ñu koy wax alaaji Mor Jeey Taal eh, sëriñ Murtada fanaan na ci néegam boobu miraaran di jëm Casamance wala mu jëm eh, Banjul te booba kër ga amuñu sax làmp ndox waxi nopp ab àll rek daanaka waaye ñoom li ñuy xañtu du alal mu ñëw tëdd ci néeg boobu ay yooni yooni yoon ci lal dalu góor boobu ndeysaan ak ni ko yàlla melal buñ jógee càpp ñu tiimalal ko tiimal tiim euh, dëkkal ko fu ñu ko def maanaam lu mel ni bool wala loolu jàpp jàpp mu sell jiite ñu ay yooni yooni yoon am na soo benn doom rakk boo xam ni sax moom lañ ko dubbee pour wax rek ni ñun ci yoon wi lañu bokk ah bu ñu ñëwee nag seet si euh, sëñ sëñ sëñ sëñ Ahmadou Badawi nga xam ne moom lañu sëñ bi booleel a ah, sëñ Murta sëñu sëñ euh, sëñ euh, sëñ sëñ Muntaxa di xalif général bi doon suñu wëlëre féete woon Kaolack ak ñun ak bàyyam Cheikh Ahmad Bachir mu xam ma bu baax ma bëgg ko lool nag mu may xool bët yërmande saa yu ma ko gisee ñaan yi ñuy ñaanal mënu su ko wax ndax mbaaxam kon dañ koy ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ak wér ah di ñaan it samat ba mi nga xam ni moom mooy sunu bunt ci sëñ bi yàlla yàggal ko fi wéral ko lool dañ fi ñëw ay yoon yoon di ko fekk ba lépp lu ñu fi indi ci teraanga rek wala lu demee ni mu jaar ci loxo kon nag ah xanaa rek sant rek lañu ñu mën a def ndax euh, li nga xam ni moom le président wax xanaa doyoon na sax ak li ñu fi jot a wax yëpp doyoon na sax waaye teraanga rek la ci jublu moo tax mu jox ma kàddu kon nag dama ko ci sant bu baax di ñaanal di ko ñaanal li yan bi nga xam ne moom la ko yen mu woyof toy te mu yàgg lool ànd ak ak ñun ñi ne ci gannaawam ñëpp yàlla barkeel mbooloo mi ah barkeel liggéey yi ba ñuy man di ñëw nii ñu ñëwee di ko dolli di do di indi indi ay teranga yu mel nii yàlla mën na ko yàlla mën nañ koo defal it te am nañ ci yaakaar ndax mënuñu suñuy moroom waaye yaakaar naa li ñuy def sunu moroom yu bari mënuñu ko kon lu ñu ko may war nañ koo xam dañ ko may war nañ koo xam kon nañ sax ci loolu ah, du ma guddal nag xam naa bu ma fi nekkoon di wax mën naa wax lu bari bari waaye ah, Euh, li xaj li nan li duuf ci nag li xajul ci cin li dama koy yemale foofu rek di sant lool nag ak gërëm di sant mbooloo mi ñu àndal ñëpp ndax ku am doole mbooloo mi sa gannaaw mbooloo mi nga xam ne nag mooy jox seen seen seen jox ñu seen bopp moo waral lii yëpp ba lu ñu yóotu jot ci comme ni ñu ko waxee léegi teraanga yi di yokk décoration yi di ñëw leneen ak leneen di ñëw ah dañu ñaan loolu jëm kanam rek te ñu xam rek ni sëñ bi la. du ñun mënuñu dara lépp sëñ bi ndax biñ juddoo bi Irakwa ya juddoo ak léegi yàggul ci benn at walla ñaari at lay toll waaw te xoolal tey li mu def même mu ngi mi ngi mi ngi rivaliser ak ñi nga xam ni ñoo ko fi jiitoon bu yàgg yàgga yàgg te nag am na yaakaar lool ni loolu day continuer day continuer buñ ci am benn sikki sàkk nañu jàpp rek te jubal bëggante soppante ñu def kuréel goo xam ni. ku ne da ngay def ni sa bopp sa morom def sa bopp ni nga def sa ni sa morom nga sa nga def sa bopp su ko defee yaakaar naa ni loolu rek doole la parce que doole mooy ñu ànd àndandoo mbooloo ànd nekk benn yéenante jàmm lu ñu yëkkati lu ñu bëgg a def ku ne jàpp ci loolu rek mooy doole waaw te tax na kon am naa yaakaar ni daal bu ñu ko doxalee noonu lu ñu fu ñu bëgg a àgg nañ fa ak waaw kon xanaa rek yem foofu bañ a xaabaabal di sant ñëpp di gërëm ñëpp allahumma salli ala sayyidina Muhammad